aousubillahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokk jullit yi mbokki talibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di nuyu képp ku ñuy dégg rek di ñëw di leeral li nga xam ne si ne jàll na fi démb muy benn photo boo xam ne dugaloon nañ ko démb ci internet bi ak lépp lu wër ci kii bi rek ci média yi ci whatsapp bi ak yëpp muy photo boo xam ne ñi ko defoon man mi ci la bokk ñett lañu woon maa ngi tudd Xaban Ndiaye ki ci des sëñ Abdou Hakim ki ci des euh, sëriñ Modou Mountakha Touré la tudd Modou Xaban Ndiaye moo wax ak moo sol lu son li moo taxawoon ci digg bi photo bii nag euh, biñ koy def jublaay bi dëgg-dëgg taxaw fatawu la rek waaye du woon pour euh, supporter wala boog loo xam ne dañ ciy jublu pour lu ànd ak lu lu lu nuroog am fola ndax boo xoolee colokaay rek war na dëggal loolu beneen bi ci toppaat muy photo bi jamono bi ñu koy def euh, ci ay weer ca ginnaaw la photo bi jamono bi ñu koy def ay ay weer ca ginnaaw la mu ngi nii euh, le 3 septembre 2021 di woon bisub ajjuma ci fajar gi moom lañ ko doon def léegi biñ taxawee di ko def nag euh, jubluwaay bi nekkul woon lu ñu luñ nekk nekkoon maam loo xamante ne dañ koy dañ koy dañ koy fooyee wala boog jublu ci comme loolu ñu ñu ñeenti muy wàllum drapeau wala dara déedéet jubluwuñ ci woon loolu wax dëgg fa yàlla dëgg rek a neex yàlla tey te nit ki moom bu fekkente ne xëy na euh, ak yàq moo moo ko tax a jóg wala boog loo xam ne si ne lu baaxul ci moom la moom bu waxee rek xëy na nit ñi war nañ koo xam ba xam kii li mu wax dëgg ci moom wala déet waaw en tout cas loolu mooy mooy kàddu yi nga xam ne si ne moom lañ amoon ci lu ñuy lu ñuy lu ñuy leer ci photo boobu noonu. ndax euh, démb ba léegi suma téléphone ni ma ci envoyé photo bi di ma wax naan ma ñeen ñi ñii ñii ñan la ñii ñan la ma leen ñii de ñun la ñu naan ñu lan ngeen jubloon ci photo bi nangam ak ma leen photo bi de loolu loolu ma ci leeral nii nii rek loolu laa leen wax leen na photo bi jubluwaay bi nëkkul woon loo xam ne si ne pour indi drapeau la wala loo xam ne si ne waaw jubloon ci supporter xeetoo ko supporter wala lu xeetoo wala dara wax dëgg fa dañoo taxawoon rek am yëgee taxaw taxaw di fatu daal loolu moo ci moo ci nekkoon waaye du jug supporter wala wala bokk pour xajamal dara wala pour bëgg ñaawal dara wala dara déedéet wax dëgg fa yàlla amuñu ko sax ndax ñun Touba lañu juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee fi lañ daara ko boo xoolee fi lañ defee lépp ba nii nii génn ñu Touba fi lañuy liggéey fi lañ defee lépp Sëriñ Touba lañ gëm te it ci xasida yi lañ nekk saa suñ xëyee ba nit ñi wàccee ci xasida yi lañu nekk liggéey wàcc dem suñu kër répression dem suñu kër bu daara ji xewle ñu dem toog bu bu bu bu bu bu ñu bu ñu soxlaa ñu ñëw waaw loolu daal lañ lañ lañ doon nañ ko laaral bu baax a baax bu ko defee mbokk yi mën a xam ne ñun jubluwuñ ci woon pour sopparte wala boog pour nekk di feeñal drapeau wala dara déedéet wax dëgg fa yàlla ñu ngi tubaat bu baax a baax di jégalu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp jomte nag am na ci ndax wax dëgg fa lii war ñu ko woon def lii moom du du du jubluwaay boo xam ne si rafet la dëgg fa yàlla ko woon def ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax mbokk yëpp di di di tubaat bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu